salaamaaleykum mbokku internet Leewtoo TV di leen bëggee bu baax a baax dem mbégte ak contentement di jënd ak yéen comme ni ma koy defee saabu événement lamb jotee wala saabu lamb lu ñëw daal di toog ak acteurs yi maanaam mbër yi waxtaan ak ñoom ci lu soxal lamb waaye lépp lu soxal seen combat ca noonu nag tey damaa dalalaat beneen champion koo war kan moo taxawal loolu ki nga xam ne nag mooy borom baraw production di Assane Ndiaye Ndiayaan boobu di ko bëggee bu baax a baax waaye ki ma dalal tey mooy Boy Dakar dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyu internet yi Boy Dakar maa ngi lay nuyu fay naa la gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant waa ñaar tali bu baax di leen gërëm NGB bi yëpp bàyyiwuma kenn di nuyu waa Kër Omar Bambara Kër Omar Pël Thiamène waaw Ndiawar Alkaali Panne Sader Laamaram ah, euh, Jilaxaar euh, Kawil Koutal dem ba Casamance di nuyu waa Tangori bu baax a baax waa Pakaaw maa leen di nuyu bu baax a baax di nuyu suñu président staff muy Aydara Mbacke Niass. borom TikTok bi di nuyu Moussa Niang bu baax a baax a baax a baax di nuyu Aba Lamine Naar mafia bi yëpp mafia soble bu ñorol bi bàyyiwuma kenn daal. mafia. mafia soble bu ñorol bi. ah loo ci dibi la jëm. <laughs> bi bàyyiwuma kenn daal. waaw di bëggee ñëpp. Mm-hmm. ayca bi ma ba ma ko nuyoo ba pare gis nga nam nuyoo bi am na doole waaye NGB bi dama di bëggee bu baax a baax ñaari tali. Grand Dakar Biscuiterie Biscuiterie ayca bëgg naa leen bu baax a baax waaye du ma waxtaan ak moom te du ma ñëw ci nga xam ne mooy dernier combat am combat ba nga doon bëreek gàkku de mën nga maa ñëwal sa dernier combat boobu. waaw ah, sama dernier combat bëri nañ ko war a bëree yàlla jox ñu défaite par décision arbitre di ko sant yàlla xam nga dana am mel ma boo xamante doo mën a saltal victoire jàmbur. doo ci mën a wax bu bëri. bëri naa ko ak blessure ñëpp xamuñu ko woon mais sant yàlla daal ba yàlla. sutural nañu ba laaluñu suuf par décision arbitre lañu gagné. Mhm. mais sant yàlla rek. balaa ñuy ñëw ci cinq avertissement yooyu ñu ngi jour combat ba ki nga xam ne mooy boole Dakar indil gàkku doo lu tar indil ko bagaar 100 pour cent dañ ne la nga ñëw xeex ak moom wala lan la woon. non waxuñu ma pour ñu ma xeexam moom sax mais dafa fekk ne instant boobu noonu instant boobu noonu mënuma bëreeg parce que sama faar bi dafa amoon problème dafa dammoon. Mhm. xam nga ma ñëw bëriwaale loolu Casamance laa demoon compétir ma ñëw di bëriwaale moom parce que xam naa ne su jàppante moom rek. sama yax bi mun na cee yëngu loolu moo tax. Mhm. Mhm. ngay bëreeg moom ñu gis heure boo génnee saako yi. Mhm. arbit jox la avertissement yow. est-ce que mënoo woon indi benn stratégie pour bañ avertissement yi bari ci yow. waaw am na avertissement yoo xam ne du yoon moom mais parce que demoon naa ba yenn moment dama ko jekk woon si xeex bi avertissement amaana yooyu su suñ ma ko jox joxutoon mën naa ko gañe mais comme que yàlla ni la ko dogalee rek. noo ko dundee. waaw gars yi encouragé ma rek xale yi koñ ba yëpp. ñu naan boo Dakar amul découragé. te découragé wu ba tey yàlla joxaat ma beneen combat. di ñaan yàlla mu may ma ci ndam. Mhm. baa ñëw ci combat boobu rek nga nekk mbër ñu gis fan yi man mënoon naa ne combat yi jeexee par avertissement dafa bari en tant que lutteur yow lan nga gisee loo ciy wax. loolu moom su ma sañoon damay bàyyi gars yi di bëri mu par kenn kenn mooy kenn kenn daan moromam quoi waaw. parce que tamit lamb loolu lañ ko xamante te loolu la baaxoo. Mhm. waaw am na loo xamante ne avertissement nekkul da ngay tëb rek avertissement. Mhm. avertissement verbal war nañ ko yokk. taxawal nga bëri nga def ko trois fois nga soog a joxe avertissement léegi nag su ko defee trois fois di xam ne kii lii moom lu muy def li moo ko tey mhm. mais da ngay ñëw rek jékki-jékki avertissement jékki-jékki avertissement mhm. tey jii ni Balla Gaye par exemple ak Bombardier mhm. am na am na génn bu mu génn sama idole la am na génn bu mu génn normalement dañ waroon jox avertissement mais si toog dañu leen waar ñum ñaar ñu bëriwaat noonu la war a defee a ko a pour kenn mën a daar moromam. maanaam li daan daa wàcc ma daan naa wóor waaye balaa jëlee leer foog kenn daan. moromam waaw foog kenn daan ci noonu nag mu am defet mm-hmm. hmm? mu dundee ko comme champion ni mu dundee défaite am jox ko beneen combat sa diggante caatu ngéwél ndax nga koy waajalee. waaw sama diggante caatu ngéwél komba bi dafa ma ñor parce que damay bëri waxkat. Hmm? ku bëri wax damay tëj gémmiñam le siège incha allah combat bi su yaakaar ne day yomb day nax boppam man moom. dama si négocié wu dama koy jàpp daan dem jàll sama yoon waaw parce que man dafa am fu ma teg sama bët sama tànk dafa wàcc si escalier bi benn tànk bi dafa wàcc. foog ma yéegalaat ko foog ma yéegalaat ko nga war a yéegale waaw foog ma yéegal ko. est-ce que xam nga caatu ngeewal en tant que mbër. waaw xam naa ko parce que gër bëri naa ñoo xam ne ñoo ko gën a tàng téeméeri yoon xam naa ko bu baax waaw nee na man nag pas Dakar laa mais damay fier si pas Dakar bu ma doon. maanaam nekkoo booy yow nga. waaw nee na paa la dama fier si paa paa Dakar bi. Mm. te paa bi da koy daan. incha allahu rabbi. caatu ngéwél laa lay wax xaaral combat bi bu mujjee bëree bi mu mujjee daan ki nga xam ne alliance biram la daan daan ko jël boo xam ne stade bi ñëpp dañoo tax seen gémmiñ est ce que yaa ngi sóoru xale bi technicité waaw sóoru ma ko parce que lépp lu mu mën maa ko dàq maa ko dàq xeex maa ko dàq bëri man lu ma sañ sañu ko waaw seen fees bi fees bi passé Ibomar Assane Ndiaye woo ñu fa ñun ñëpp ñu gis ba nga dugg see avant tout ambiance nga indi bàq loo xamante ni ñëpp dañoon kii combat bi yenu na ko. nga ñëw wa di ko wane carrément yow maa la mën da nga jàpp ne yow yaa ko mën wala. maa ko mën maa ko bu doole. ah wow man damay bëri man gàddu naa sama saak dem fu ne. waaw man lu ma sañ ci làmb sañu ko. sa man dama am sañ-sañ ci làmb. te làmb dama dama dama war a sori ci làmb. waaw Balla Gaye futur Modou Lo nga am ni hmm? incha allah. taxawal <laughs> Modou Mané nee na Balla Gaye numéro 2 BG2 mooy mooy idolam ah. waaye futur Modou Lo. ñuy gis. Hmm. ci Modou dañuy gis jàmbaarteem fitam jomam mën a bëreem. Hmm. mën nañ koo xaar ci yow. waaw dafa am lu ma gis si moom gis gis euh, gis ko si Balla Gaye yaakaar naa ne ñaari yow soo ko dajalee. caadu ngéwél du la téye te loolu noonu dafa nekk ci man. Caatu Ngéwél moo la gën jege Modou Lo de. déggoo ma de lu ma jege jege jege bu soobee yàlla ak yonent bi dama koy daan dama koy indi bëre bëre Modou Lo indi ko fitu Balla Gaye. <laughs> naan ko tus. waaw tus. amoon <laughs> ah, na ma saako la neex nga def topp ni <laughs> yow euh, Boy Dakar damay ñëwaat ba léegi seen face to face bi ñu gis face to face bi bari am ay violence ñi naan jàppal bàyyi est que yow yaa ngi waajal lu ni mel ak say supporters pour ëllëg boo ne amee face to face dara bañ ci am. waaw loolu moom chaque jour dama siy xuloo sax sama booy des fois dañ may wax dugal sa oto sa yoon nekku ci nii naa kërëb kërëb di jàppal bàyyi mais ma dama siy këpp kaani ba jàmm ñëw parce que ñun jàmm la ñu xamee tey di làmb su demee ba am ay yenn violence yi war nañ xoolaat suñu boobu lu jóg ñu ne làmb làmb làmb làmb ñu ñun ñoo ko war a mën a defar di wax ak suñu nit yi di waxal suñu jeunes yi waaw am na ñoo xamante tamit des fois dañuy rax pour yàq rek mhm. mais ñun ñoo war xam suñu bopp xam suñu valeur ñun du ñu ay esclave du ñu ay mbaam yoo xamante dañu nekk fii nii di xeex ak dóorante lu ñu lu ñuy xeex rek doy na mbëri lu ñuy xeex si biir géej rek doy na waaw géew bi rek loolu rek dafa doy combat boobu rek dafa doy mhm. kon nag bu ñu nekk fii di perturber làmb mhm. làmb nañ bàyyi ñu concentré aussi parce que suñu teraanga si lañu nekk jaaykatu caaf jaaykatu t-shirt yi mhm. jaaykatu am na ñoo xam ne dañuy jëndaat billet di ko jaayaat xam nga yooyu yëpp mu ngi ci mu ngi nañ xoolaat suñu jikko xoolaat suñu xol yi gën kaa raxas ñu doon benn ñu xam ne sport bi moom la ñu am mhm. waaw sport bi football ak làmb la ñu am kon donc nañu jàppale si loolu noonu ba violence bi tamit xam nga mhm. arrêté quoi. te làmb ji sax mooy suñu sport national maanaam ñun moom lañ am moom la suñu xale yi di fowantoo ba mag. Mhm. nga nekk mbër du ma sax mbër bu ndaw nga waaye ci mbër yi xale nga ci. ki nga xamante ne nii mooy lagrose bu génnaan NGB ba ñëpp naan kii mbooloo bi àndal ñu gis mbooloo boobu bu gisee booy gis ko sa ginnaaw. Mm-hmm. lan la. booy Dakar booy plateau sonal nga ma de. booy plateau na maa koy. sama la sama rakk la. booy plateau sama gaayan la sama lépp la sama rakk la xam nga vraiment kooku tamit maa ngi yàlla may ko si ndam. Mm-hmm. loolu noonu dañ koy sant yàlla. parce que tamit Lac Rose suñu mag la. Mm-hmm. waaw suñu mag la. amaana tamit tuxu na géejuwaay. mais ba tey waa ñaar tamit ñu ngi koy bëggee. waaw rakkam nag moo jóg di dem uti comme nu mu doon def. gars yi rek ñooy ñëwaat nekkaat ci man. waaw mais lu dara mm-hmm. waaw jox nit ñi cër ak waa gox bi koo romb nga béggee ko nuyu ko mm-hmm. loolu la ñu dund ak ñoom joxuñu leen alal boo xamante ne dañuy tax ñu toog ñu mm-hmm. joxuñu leen dara waaw dañ di béggee di leen nuyu di toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom di dem football ak ñoom waaw la rek mais du leneen. du ma génn NG bi damay duggaat ba ci biir dugg ñaari tal sa diggante ki nga xamante ne mooy Pape Ndoye général. ak mbër yi nekk foofu NG boobu naka ngeen def relation yi. waaw man sama sama relation ak euh, Pape Ndoye. ak Lagrosse moom laa gën am ko yeneen mbëri ak ak ñoom caat caat sama grand frère. caat bu Boy Bambara waaw caat bu Boy Bambara ñëpp ñoo nekk ensemble ñëpp ñoo far ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi amul xaj seen. waaw gars yi daal ñëpp ñoo far ku xewle sa morom day ñëw. temps yee passé rek Lagrosse dafa dal sama kaw lu tax waxuma sa ëppoon presse affaire yooyu noonu. Mm-hmm. ma ne ko sama xel a fàttu rek. Mm-hmm. ak préparation yi mm-hmm. waaw. ayca mu ngi noonu di ko bëggee bu baax a baax moom sañ Fallou ah tour bu neex bi buñ géej jógee loolu combat bi li ci des mën naa ne bàyyiwut 15 jours sa desatu ci. jot na ba pare préparation physique naka nga koy waajalee ñaar séance d' entraînement ngay def. instant ni ñaar lay def ba léegi nii. waaw pare nañ ci lépp. waaw pare nañ de. ndam rek moo des. pare ngeen ci te incha allah dañuy am ndam. loolu sa adversaire. sa adversaire yàlla may ko. Ah, ah. taw féex bëggee ma ko nii bëggee ma ko nii moom xool caméra bi nii mu xool. ne ko caatu ngéwél lii ak lii jour ji lii laa lay def. caatu ngéwél yàlla na nga am jàmm am feex sa mbokk yi yëpp ñu esaat ma daan la jël bu rëy nga dem ñibbi nga dem nappi jën. waaw <laughs> xanaa mu nappee la ciy jox laq jën. ba tey mun na nekk de. mën nga naa laq jën trop. loo naa jën yi nga ñoom. xanaa moo na nga am mafia soble bu ñorul bi. noonu la demee nag. Hmm? <laughs> noonu la demee. face to yi nag. pare ngeen pour jàkkaarloo wala da ngeen xaar jour ji pour ngeen jàkkaarloo. ça dépend ci moom. su buggee bëggee mu ñëw ma fanaan gàllem. ma ma fanaan gàllem ba jour combat ma jàpp ko daan ko. wala am nga fit de biir gàllem. <laughs> dama ragal loolu. <laughs> temps bi ñu may na xaw naa xooj waaye sama dernière question mooy sa diggante ki nga xamante ne nii mooy promoteur bi. Hmm. ñu gis sa combat moo ko tëgg sa diggante wala sa relation la la yaa Assane Ndiaye bu Bawol. Assane Ndiaye moo ma bëggal boppam rek. waaw xam nga moo ma bëggal boppam xam nga nit ki tamit des fois da ngay gis nit ki il faut ma mu tëggal ko combat. Hmm. parce que nu muy bëree jom mu am fit mu am. Hmm. ak capacité am loolu la amaana loolu la gis si man ba tax na mu may tëgal combat. waaw loolu la rek mais du dara. loo koy wax. di ko ñaanal yàlla rek mu dem ba tëgal may grand combat comme ni mu Modou Lo ak ñeneen ak ñeneen. waaw loolu laa di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram. di ko ñaanal bi tamit yàlla na réussir waaw. sa dernier mot lay wax di dénk avant combat bi. waaw sama euh, supporter yi maa leen di dénk jouru combat bi ngir yàlla yonent bi nañ jël matukaay bu wér nga xamante ne kenn duñu rax benn agression du am. xam nga parce que tamit ñun da des fois da ngay romb sax ñu ne diw moo fi jaar nit ñi dañu agressé yàlla na def lii yàlla na daanu wala yàlla na mm-hmm. di loolu baaxul waaw di la móolu loolu baaxul dama leen koy ñaan ñu xool sama jëm ak nu ñu ma bëggee ak nu ñu may toppee mm-hmm. ñu dimbale ma ci loolu ba agression du am mm-hmm. waaw sama yaay Ndeye Saly Diop Dieng ministre de la femme de la famille may naa la waaw sama yaay Ndeye Saly et protection des enfants maa ngi koy woo si combat bu baax a baax ma mu jàpp ci sama yaay Ndeye Saly Diop waaw man la sa doom booy Dakar maa lay woo si combat bi njóogu ambassade France bëgg naa nga jàpp ci combat bi bu baax a baax a baax a baax njóogu ambassade France waaw bëgg naa nga jàpp ci combat bi sa booy mooy wax ak yow waaw ku si mel ni njóogu Esat Iba Mar euh, Demba Diop maa ngi koy woo si combat bi ku si mel ni waa diaspora bi bàyyiwuma kenn ñoom Jaara Italie ñoom El Hadj ñoom Abdou Italie ñoom Bala Sankhare ñoom Ndeye Sankhare bàyyiwuma kenn waaw ñoom Baye Paul Baye Paul parcelle maa ngi koy woo si combat bi ak Toumani bàyyiwuma leen maa leen di woo si combat bu baax a baax a baax a baax képp koo xam ne mu ngi big up Boy Dakar rek woo naa ko sama papa Jibril Wade maa ngi koy a baax euh, a koy woo si combat bi Jean Baptiste Diouf tamit maa ngi koy woo si combat bi waaw di woo ñëpp bàyyiwuma kenn suñu nekkee fi di woote rek xam nga. waaw ñeneen ñu si des ni seen kër ñu def face to face. <laughs> incha allah incha allah. ayca beneen bi dañ da koy daal di fekk ba biir daal di waxtaan moom ci lépp ma tëj nag du ma Fama kenn du yow ah, sama caméra bu moom bu baax a baax waaye le futur maire ñëw nga jàpp ci combat bi tamit Pape Thialis Faye maa ngi lay woo ñoo jàpp suñu combat bi ah bu mag bi mañ pro kenn du yow loo filmé lu bëgguma waaye 100% assurance sécurité période dama lay bëggee bu baax a baax loof loof loof ay ca ba beneen ak beneen ah tamit comme noo ko waxee rek waaw maa ngi dégg lu ma lu muy ah, dàq dóor dégg nga dégg nga Thialis waaw <laughs> Pape Thialis Faye suñu papa suñu grand suñu ton suñu lépp dama bëgg nga jàpp suñu combat bi bu baax a baax. maam Mbàkke nag dañu fa ñëw. a jàpp si bu baax a baax ci yoon waaw allah incha allah maa la yóbbu ayca di leen bëggee bu baax a baax internet yi ah, national ak international laay jaajëfal bu baax jox leen dig daje beneen yoon ak beneen champion ci waxtaanu làmb jaajëf